wajaali ci suufa bi xuluxika te xikma bi mbokk yi day wax ne booy toog ak boroom xam-xam yi na nga jëfandikoo sam xel di leen diglu fa siyene tànq te rootloo jariñoo waaye booy toog ak nga xam ne ay chef lañ kilifay àdduna lañu na nga jëfandikoo sa xam-xam xam-xamu diine fa duñ la duggaloo ci loo xam ne lislaam daf la koy jàmme mais booy toogandoog say xarit na nga jëfandikoo say ba booy toppandoog nag sa waa kër jëfandikoo sa ñeewante yërmande oyof ci ñoom waaye booy toogandoog ñi nga xam dañoo xaw a dese seeni bopp fee sut ñu waye di jëfandikoo say jikko waaw bul jël seeni jikko ñoom di leen ci fekk si waaye yow jëlal say jikko jëfandikoo ko ak ñoom mbokk yi juróomi xeetu nit ñi mu la wax ku ci nekk lii mu la wax rek moo mën a amee ci moom njariñ te doo ca am lor borom xam-xam boo toogee moom jëru woon xam-xam jëru woon dara waaye boo sam xel te taatan fas seene tànk euh, kilifa àdduna yi soo dee toogandoog ñoom te amoo xam-xam mën nañ laa dugal ci loo xam day jam sa diine mbaa jam sa jikko kon bu boobaa sa xam-xam ngay jëfandikoo pour toog ak ñoom say xarit boo leen wonee ay teggin amuñu fuñ la mën a jaar bëtt la waaye nu mëna deme rek yaa wara ñeewante jëme ci ñoom yërëm leen oyof ci seen kaw ñi xam seen xel yi dafa dese nag ñu xawana coodiku ñoo ñu itam say jikko ngay jëfandikoo ñoom ngir nga mën a am ci ñoom li nga bëgg kon loolu la xikma bi jàngale tey ñu indi ñaan gi ndax ñaanu àjjuma gi dañ ko daan indi di ko fàtte nag fan yii yépp rek mu ne yow yàlla ñoo ngi lay ñaan diine yokk yokku dund gu yaram wu Eh, wërsëgu yaatu ak tuub guñu nangu balaa ñoo faatu ak faatu ci lu neex yàlla mooy shahada waaye ak njéggalit lu jiitu faatu wala ginnaaw buñ faatoo njéggal ak baal buñ demee ba àgg ci di xisaab waaye ak kóolute ci sa mbugal waaye amub cir ca àjjana yàlla na nga ñu may ñu xool sa jëmm ju tedd ji te loolu mooy li yàlla di wax ziyaada lillazina ahsanul xusna wa ziyaada mufassiruna yi dañuy wax ne ñi doon def lu rafet dañuy am àjjana ak ndolleen boroom xam-xam yi ndool leen li mooy gis yàlla tabaraka wa taala kon loolu moo doonoon xikma bi tey ñu sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamu aleykum wa rahmatullah